Nani! jaarale sëriñ Cheikh mi nga xam ni moom la jiital ci kanamu njaboot gi mu jiital liggéey bi di sàkku mu jot li mu sëriñ bi nuyoo Cheikh Sidi Mokhtar ak cant ak mu yàgg fi tamit njaboot gi ci gannaaw di sàkku mu jot li ñu nuyoo boobu ci yépp moom mi ñu jiital ci kanam di bu baax itam kilifa yi nga xam ne dañu leen fee fekk mu mel ni Serigne Modou Fos mi nga xam ne moo jóg léegi ak Alaaji Njaay mi nga xam ne moo fi teewal Abdoulahat Ka xam ne mooy maire bi ànd ak Mame Mbaye Niang ak Mame Cheikh ak sëñ Palla ak Modou Njaay ñu ñu àndal ñëpp di nuyu Serigne Bamba Sougou ak Serigne Ahmed kilifa yi nga xam ne teew nañ fi yëpp di nuyu Matar Ba nga xam ne ministre Matar Ba nga xam ne moo fi teew ànd ak délégation bi mu àndal teewal fi président de la république mu ànd ak Cheikh Mbacke Sakho ànd ak pap Maye Diop ànd ak gouverneur ak Modou Mbacke su préfet ak kilifa yi yëpp ñoo ngi leen di sàkku ci Matar Ba di ko yóbbante nuyoo Cheikh Sidi Mouhtar ak cant ak ñaar bu jëm ci président de la république di nuyu mbokki taalibe nga xam dañu fee teew yépp di jël nuyoo boobu dina teg ci loxo Mbaye Sarr ak Madické Niang eh, loxo nuyoo taalibe yi yépp ndax Madické Niang ñoo ngi koy nuyu te ko jot li njaax mu bàyyi ko sëriñ bi demoon nañ jaare ko waaye nag naaw dañoo ñëw ci pencum Cheikh Massamba tam yaakaar Cheikh Massamba ñoo koy jaar Serigne Ba koy jaar waajuram bi nga xam ne moo fi bàyyi ko di ko jaar Serigne Moustapha mi nga xam ne moo ñu gis ñoom ñëpp di ko jaarale ci loxob Serigne Cheikh Mamadou te di ko ñaanal mu gisee ma Cheikh sambal di nuyu mbokki bi yi fi teew yëpp ndax gitaar yi ñu rëy rëy lu fi am mën nañoo wax ni ñoom la ndax suñu nee bis sàngam ñëw na muy seen bisu kilifa benn taal bi dootu nelaw du yendal du fanaanal liñ fi war a def lépp dinañ ko def ba pare boole ko nekk ci biir liggéey bi ñoo joxe seen alal def fi liñ fi war a def ba noppi nag wëlbatiku nekkaat ci biir liggéey bi liggéey ko ba mu jeex tar da ngay dégg sax ñuy wax bu yëf yi tasee ñu ne balaa kenn ñibbi na ngeen dindi baas yi ba noppi te su boobaa ku nekk da nga sonn ba nelaw rek ngay te loolu lépp jëmmi tax ñu di ko def te Serigne Touba moo ñu di ko def am na fay te dana leen fay euh, mënuñu nag bis yu mel nii ñu ñëw ci. buñ wax dañuy tambalé ci Cheikh Massamba samba nga xamné moy waral bis ndax bis bi li lay lay waru ñu rek xalaat def ko bisu lek bisu naan bisu jox addiya mu dal di jeex déedéet dañu wara xol Cheikh Massamba mi nga xamné mo la taxawal bis bi lan la doon dund lan moko may li mo am ba fi jógee légui di at yu bari ñu wooteel ko mbooloo mu toll nii ñëw teew te luyeeluñ ci ab kaar kenn ne nga ñëw euh, néewuñu kenn boo ñëwee itam dinaa ñu la jox nangam wala dinaa ñu la defal nangam kenn ku nekk yaa jur sa jëmmu bopp ngir sa cofeel ci Cheikh Massamba ngir liggéey bu mu am bu mu liggéey ak ngërëm ko Sëriñ Tuubaa gën réew mi nag day loo xam ne lu yaatu la référence kenn amatu ñi nga xam ne ay murid lañu ay taalib lañu seeni suñ ko suñu référé woo ci ñi nga xam ne noom lañu ñu am def naa duñ juum ndax Cheikh Massamba bi ku ko jël muy sa référence doo juum Maam Thierno Birahim ku ko jël muy sa référence doo juum sëñ ba Bousso ku ko jël muy sa référence doo juum sëñ Mbaam Abdourahmane loolu ku ko jël muy sa référence doo juum sëñ Amsatou Diakhaté ku jël muy sa référence doo juum sëñ sëñ sëñ Massamba Diop ku ko jël muy sa référence doo juum yaakaar naa ne euh, sëñ njëriñ ca waagaan bu ko jël moom itam ay système fii ci kaw muy sa référence doo jur kon ñun ñoom dañoo war a xool ci lan lañ nekkoon fan lañ tegoon seen tànk ñu mag cee cité rek tey jii ku mel ne Cheikh Massamba mi nga xam ne moo waral bis bi ndax xam ni rakki Serigne Touba waaye nag Serigne Touba nee na lu rakk di defal mag Cheikh Massamba defal na ko Serigne Touba. sëñ Tuubaa it gërëm na ko ngir lu rakk di defal mag defal na ko ci cërub ci ci ci cërub mbokk sëñ Tuubaa itam wax ne Cheikh Massamba lu ab taalibe di defal ab sëriñam defal na ko bu gërëm naa ko ngërëmul sëriñ ak taalibe gërëm ko ngërëmul mag ak rakk mu wax ne Cheikh Massamba itam gërëm naa ko ngërëmul nit ak mu jur ngir sëriñ Tuubaa moo joxe turu Cheikh Massamba moo fekk sëñ Mamour Anta Sali ca armeel Dexële mu laaj ko tur wi mu jox ko ko mu tuddee ko seex Cheikh Massamba kon mel na ne njural ga lu am la te Cheikh Massamba xamoon na ko te jàpp na ko itam kon buñ dee xool ñun ci ñooñu la ñu xool ndax bokk ak nit lépp nga jël lépp teg ko ne jaayante moom ni ni ni ni ni sambaka ngay rakkam te ñun ñii xam na ku dekk ak sa rakk ci kër ba gërëm ko sa doo bokkal rek laa waxuma ay sëriñ ak yooyu ba gërëm xam nañ gërëm loolu fan la jëm ku jur nit ba gërëm ko xam nañ gërëm loolu fan fan la jëm sëriñ bu jëpp lu ci ba xam nañ xam nañ gërëm loolu fan la jëm te yett yi yëpp Cheikh Massamba boole na ko ci Sëriñ Touba loo xam ne ni tey dañ koy nattal ci Sëriñ Touba jamono yi nga xam ne Sëriñ Touba koy liggéeyloo ci xasaay gi sax am ñeneen ñoo xam ne loolu xaw naa diis ci ñoom ngir cër ngir rëy bu cër boobu rëy xasaay yi ci seen bopp ñoom ñoo xam leen ñoo noo sàkku sëñ Tuubaa boole ñoo Seex Musaa xasaay yi ci seen bopp ñoom ñoo sàkku te ñëpp xam na ni sëñ mooy karaama sëñ Tuubaa ñuy soppi ñu te def yoo xam dañ koy wane ak naan def sàngam wuñ ko yooyu yëpp sëñ moom loolu mi ko daxal ci mbindam kon mbind moom képp kum ko confié képp ku bokkul ci ñëpp xam na ne yàlla borom jox na la cër bu mat sëkk te bindkat écrivain la bindkat bu mag la ba noppi nag calligraphe calligraphe mooy koo xam ne sa exception la ci yi kon Cheikh Massamba wax référence la ci ma référence la ci kon ñun am nañu référence nañ léegi nekk Serigne Touba ku doon porté ñaata milliards waxuma li nga xam ni dañ koy séer nii waaye li ñu gisul ci ay milliards yoo xam ni jëf na ko te jëf ko ci lislaam bi moo ko foofu li nga xam ne man na ko séer kooku képp ko nga xam ni sa référence la te boole ko nappi ak toog ak yéen mën na ju mat sëkk ak jaaxle Cheikh Cheikh Sidi Moukhtar mooy jaaxle tali bi te jikko yooyu yëpp jikkoy Cheikh jikkoy Serigne Touba la yoo xam ne jël na ko sol ko Cheikh Massamba Cheikh ba jël ko sol ko ci sëñ Moustapha mi sëñ tubaa jël ko sol ko ci sëñ Baara sëñ Baara sol ko ci Cheikh Sidi Moukhtar Cheikh Sidi Moukhtar di sëñ Touba kon lépp benn kon sëñ Cheikh sëñ Sidi Moukhtar mi ngi jot li cant ak ngërëm di sàkku nga jàllaleel ko ba ci sëriñ Moustapha mi nga xam ne mooy njiitu jamono ji tey jii. di xam ne ni bu mu nekkee Serigne Touba ba léegi lépp loo xam ne war na leen ci diggante seen digg nga xam ne waroon na diggante Cheikh Massamba ak Serigne Touba waroon na diggante Serigne Mahamadou nag xalifa yi nga xam ne ñoo fi jaar toogal Cheikh Massamba yëpp waroon na leen lépp matoon na sëkk waaye Serigne Moustapha mii bi mu ñëwee gën na koo matal rawatina yow mi nga xam ne ci yow la ko jaarale te doo ci dara. muy xamal taalibe yi ne lépp lu ci nit joxe te joxe ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa joxe ko ngir liggéey sëñ Tuubaa bi tam jaar ci njaboot gi na ngeen xam ne yegg na ci moom ba seen kilifa yooyu jël seen alal sax teg ko ci biir. sëñ Ahmad dañu toog léegi di wax ak sëñ Moustapha sëñ Ahmad wax ñu man ak sëñ Moustapha mu sëñ Sidi lu sëñ Moustapha Massamba mi wax mu wax ni góorgóorlu gi mu doon def de moom njaboot bi yëpp bu dégg bu teg suba ngoon di liggéey. loolu mu doon liggéey wuti wu ko dara lu bëgg koo def jaasi joo xam ne képp ku jóge fee bëgg a suufal yoon mu mën laa ko ci jaasi joo te yaakaar ne kon kooku balaa ngay jàll ci seen masamba sax kooku référence koo xam ne loo ko ba moom ko ak lu mu mën a tolloog sa njaboot ak lépp yaa ngi ko a yeb yoon nga mën ci kawam loolu def naa du yoon kon ci ñooñu lañ war a kon sëñ baa xam la ak ngërëmam ak ñaanam ci njabootu Cheikh Massamba yëpp ndax lépp lu leen war ci digganteel ak moom def nañ ko ak kilifaam yi ko fi jiitu woon ba mu yegsee ci moom itam ba mu yegsee ci moom itam mën nañ ne nañ ba def ca lu ko ak njort kon sëriñ di sant di sant taalibe yëpp di gërëm ñëpp beneen bi nga xam ne moo ci des nag ma di ko jeexal mooy di dénk nit ñi ñu sax ci jaamu yàlla di dénk nit ñi ñu sax ci dëggu di wax dëgg. nit su bëggee bu ñaanee mu nangu day wax dëgg làmmiñ bu dul wax dëgg bu ñaanee yàlla du ko nangu ñu sàmm wutil bi fexe di lekk lu lew ndax waa min daabatin fil ardi illa bi nga amee téeméeri fan la yàlla suñu borom bindi li ngay lekk la ngay naan fan ñu nga fi am ngelaw li nga fi nooy dëkk yi ngay dem ak tukki yi ngay def ak yépp kum doon ci noonu ba nga amee cent vingt jours ci biir yaay la la. la la suñ borom tëral lu noonu kon goree di xëju sëñ Bara Mbacke dafa wax ni nit fi ñu juddee fi ñu gënee adduna ak fi ñu faatoo ragal xëju fi goree di xëju kon nañ xoolaat suñu référence yii ñu xool ci ñoom mboolem looy dégg ci ay yu doonu ñu di ko def kilifa yooyu ma lim yépp waxuma benn waaye jigéen ko képp daw ñu ko def kon nag ñun mënuñu leen a yaakaar ñu nekk suñuy référence Serigne tubaa sol ci ñoom li yàlla may Serigne Touba li mu ko may nga xam ne xëjut ci jenn jëmm mu séddale ko fenn fu nekk bu yekk fa dara nun nu bëgg a ñëw ber suñu yoon bopp ba ñaxwal ci foofu te bu baax itam nekk ci dëkk bi bu Serigne bi nee nangam nga ne leneen te saa boo xamee ne gas nañ ba bu ñu takk la teg la ci sa bàmmeel boola yàlla suñu borom yónni koo xam ne day dikk di la laaj doo mën a fen te la yërëm te jox nañ ko ndigal foofee doo xalaat kenn ku dul Sëriñ Tuuba ki nga xam ne foofee moom nga fay xalaat nag kuñ ne mooy moom bu diglee war nga ko déglu te du diglee lu neexul yàlla de ndax Sëriñ Tuuba li muy yàgg yàgg ci tukkeem bii li muy rëy rëy rëy rëy taxawal diine rek ak dëgëral diine rek moo tax kon koo xam ne murit nga di def dara loo xam ne diine sëntaanewu ko wala ngay wax loo xam ne diine santaane ko wala ngay jëf loo xam ne diine santaane ko nekkoo ci ndigalu Sëriñ Tuuba kon nañ dëggu nañ góorgóorlu jaamu yàlla nañ góorgóorlu ci liggéey nañ góorgóorlu ci booloo nekk benn te ku ne li nga yéene sa bopp nga yéene sa morom Sénégal kiñaan gi képp moo fi bàyyi bekkoor waaye Sëriñ Tuuba li mu liggéey ak ñi mel ni moom ñëpp. nga xamni yalla sun borom ko tek di nek xol yi and booloo nek do mu sot ko senegal Sénégal kenn xamul nu mu toll waaye kiñaan bi képp lu fi lu yàq ci senegal moko ko ta da ba fepp nak jangoro ni jaro ta tension nangam tase dekk bi non la kenyan bi tase dekk bi kon booloo len nek len benn sëñ seen mokhtar bu ñewé ñëwee daf li mu njëkk a wax moy jullit jullit mooy mbokk waxte si moo doon lay jamaan wala tafarraqu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslimu bayna akhawaykum li njëkk wax da koo wax nak mom diko dox diko ko jëf mayees na ko wax te doo ko dox doo jëf waaye da koo wax di ko dox di ko jëf sëñ Maodo Cissé bi nii ci tribune waa Ndiassane nañ fi waa Kene baa fi waa ñeneen te lépp ci Touba ñoom ñëpp noonu la ñu na ñoo dikk tamit dëgg ci ñoom nag nañ ko defoon ci màggalu Touba kon Cheikh Sidi Mokhtar jëfam jooju nañ ko yàlla fay ñu dénk nit ñi ñu lekk lu lew ku kuy lekk lu lew boo ñaanee yàlla suñu borom du ko nag sëriñ Touba yàlla may dara nga dara ci Touba te am sa te ci yow la du ci Touba. wa ñu ngi ñaan mbokki talibé yi baxna dana ko atal nak señ bi ana ab talibé bu ñew ci tantu señ ma sambalu ñak ñak doole atal micro. deug la. maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant sëriñ tuba di ñaanal sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke yàlla na fi yàgg te wër di nuyoo di jiital ci nuyoo bi Serigne Moustapha di ñaan moom tamit yàlla yàggal ay fanam te may ko wër di ziyaare sëñ Mamor waaye it di nuyu Serigne Cheikh di ko nuyu di nuyu mbokku taalibe yi mbokk di nuyu it ñu jokk sëriñ Massamba Mbacké di sama sëriñ représenté fii xalif général des Mourides muy sëriñ Bara Laat su ma ko gisee sama xel ci sama sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko nuyu di ko ziyaar bu ma ko ziyaaree nag ziyaare naa ko ñépp ñi nga xamante ne ay kilifa lañ nekk ay kilifa mbakke mbakke di góor di jigéen di ziar mbokk taalibe yi di ziar góor ñi ak jigéen ñi ñu ñëw fi tey ci turu son excellence le président Macky Sall ànd ci ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Mbacké Sakho nekk kuy xelal le président Macky Sall yor li jëm ci wàllu këri diine yi baax ànd ci it ak le conseil spécial Isma Dioum di taalibe dëkk fii ci Touba ànd ci ak yeneeni kilifa kenn ki di taalibe ci kër gi di Pape Mayel Diop directeur général des aéroports du Sénégal ànd ci ak ki nga xamante ne it mooy chef de cabinet ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo di tudd Ba Basirou nekk it taalibe ci kër gi ànd ci ak seen doom nekk chargé de mission nekk fii tudd daal yi am soxna ci kër gi waaye ñu ngi ci ànd aussi ak yeneeni kilifa yoo xamante ne dinaa ko lim léegi honorable député Abdoulaye Sadaga mu ngi fi nous ak ñun ñu ngi ànd honorable député Magat Sila. Magat Djakate nous ngi it ànd ak ki nga Bassirou di conseiller économique social et environnemental fekk si fi nag ki nga xamante le gouverneur de région ak préfet ak sous-préfet ak ñi nga xamante ñoo représenté le maire de Touba Abdou Hakka Ka waaye ànd ci ak chef de service yi nga xamante ñoo nekk ci département beeg région Diourbel yépp sëriñ bi ñu ngi lay ziar ci turu son excellence de président Macky Sall di talibé tey ñépp xam nañ ne Sénégal di réew mi mu ngi recevoir yeneen njiiti réew yi ci samedi bi ak dimanche bi loolu li muy firndeel mooy jot xaw naa manqué waaye li jot di manqué yépp président Macky Sall daf ñu wax ñu déplacé wu ñëw fii ci Touba bokk ci bés bi parce que ku xam dayoo Cheikh Massamba Mbacké waru la mën a am bés te nga nekk ci réew mi te teewoo ji man nag ma ciy sant yàlla bu baax parce que daw yalla dogalon na man ma fi ni ñewon renit yalla may nañu ñu fekk ko motax ñu koy gërem diko sant ci lool di ñaan ñi fi tew yépp yalla nañ ko fekk dewel te ku ci nekk am jam son excellence le président Macky Sall nak daf ñu wax ci bi ñu ñaan réew mi jëm kanam ñu ñaan nit ñepp nekk benn waaye ñu ñaan ñu roy ci suñu kilifa diine yi loolu li tax ñu ci insister mooy àdduna bi dafa jaxasoo ay nit dinañu mbubboo diine pour faat ay yeneen doomu aadama loolu nag ku ñàkk royuwaay bu baax moo ciy tabbi waaye ku topp ci sëriñ si surtout bés bii di sëñ Massamba Mbacké ku mel ku jéem ma mel ni moom parce que mel ni moom dana jafe waaye ku roy yenn ci jikko yi nga mën a roy ci moom defe naa ne di mucc ci yu mel noonu kilifa réew mi it nee na sëriñ yi fi nekk yëpp nañu ñaan nawet bi ñuy jublu nekk nawetu jàmm ne nawet boo xamante ndox dana bare dina bari te barkeel lu ci nit ji war ko mën a muurloo waaye mu ngi ñaan it ngeen ñaanal ko ba li ko yàlla jox yen ko ko te mu xam ne yàlla mooy yor palam di ko teg ci bopp ku ko neex yàlla nag ko yàlla jàppale ba waa Sénégal gis ci seen bopp ni ko nit ñi waxee waaye bu kenn jëpp sa bopp ci lii nga xamante ne moom moo moom lay seq digganteem ak doomu aadama yi ko fal di wax ne li nga xamante ne moom la Cheikh Bara laat wax léegi lu rëy la parce que dem ci tante yonent bi wala tante bu ñuy tagg sëriñ Touba wala serigne Massamba mbake wala kilifa diine bu meunti nek sofa joge te amul lu defaru ci yow wala lu yok ci yow mu ngi melni ko dem fàtte ay nopam man de lima japp moy lim fi wax lu la te jarna japp te ku ci nek war nga liggey ci sa bop parce que ben. xam sa bop su ko ñun ñëpp ñu nek benn. yàlla mooy dogal te lu yàlla dogal nangu ko ci ngay gën a am noppal ci ngay gën nekk ci jàmm ba mu ko waxee it sëriñ Basiru bi nga xamante ne moom moo nekk sëriñ Basiru Abdou Khoudous porte parole Darou Mouss ma toog ci wetam mu baaxe ma ne ki ñaan mu ngi mel ni loo xamante ne posoñ la boo xamante ne ci ki mu nekk lay njëkk a faat balaa mu yegg ci kañ ko yóbbante loolu nag ku ko dégg ci kilifa yu tollu ni lu newon ci loolu lu xaw a war nga tok wet liggey ci ba benen yon boy dellu ci tante bi am lu ko ci lu dis lolu nekkon ci yow ngi waxit ne fi nga xamantene ne lañu tok ni ci penc Cheikh Massamba sayni Basiru Lo ma ngi lay sant di la gërëm ci xam-xam bi di la ñaanal yalla yalla yokku leer yokku xam-xam bi yokku fan li nga wax lu reey la parce que man de ba may ñew di japp di ñew fi dama jàppoon ne serigne Massamba maas téré waye lima ma fi dégg mo upp lima parce que li upp maas moy ñu jox la ne la lima bindon bindat ko lima la jox bu ma ci taggu lo ci xalaat def ko ci lool nak moy tax ñun mbokki talibé yi parce que man dama jang xassay comme ñep ku ci jang waxe koy wax ren nga xam ko nga ñàkk koo xam loo ci jàng am yoon am na lu cëtti bu jox ko sëñ Massamba mi la tax nga mën koo jàng te mu yomb di waxit ne fii ñu ñëw lu ñu fi ñaan yàlla dina ko nangu moo tax ñuy ñaan jàmm am ci réew mi parce que jàmm ci la lépp xëj ñëpp nekk benn ñëpp baalante joxante loxo te xam ne lu yàlla bëgg def ko ci nit doomu aadama mënu koo dindi ku sëriñ Touba jël nag foofu lay daanale dénk la ay téere boole la ci ñi mu jiital ci liggéey jumaa ji war nga xam ne am nga pàcc gu rëy ci yoonu sëriñ Touba bañ ko naan demal ca carrière ya mu dem dëkk ca carrière su fekkoon ne ak taalibe newul ci moom mu diis ci moom moo tax ñu ngi sàkku ci bokk yi ñun ñëpp ñu doon ay taalibe taalibe nag foo ko waxee ñu foog ne yoonu murit rekk a tax waaye taalibe li ñu jàpp ne moom la mooy nit ku jàppe nit ñi comme boppam nit ku yéene nit ñi jàmm nit ku oyof te xam ne diis amul njariñ su ko defee ci luñ la yóbbu rek lu nit ñi xalaat ne dafa diis yow da kontaan te xam ne lu la yàlla teg loolu la la war a teg te nga nangu ko suñu ko defee xuloo du fi am xeex du fi am werante du fi am maa ngi ñaan nag sëriñ si fi nekk ñu ñaanal ñu ñun ñuy yëngu ci wàllu politique ñuy politique te lal ko ci ngëm yàlla parce que mun naa nekk politique te ngëm ko ci yàlla ngëm yàlla mooy doomu aadama bu ne doomu aadama bu ne am nga xol te am nga loo bëgg waaye boo jiitalee ngëm yàlla di nga ko di nga ca def la nga mën te xaar yàlla dogal te bu dogalee di nga ko nangu te doo am coow doo am coono doo am jafe-jafe mënuñoo jeexal nag te jaalewuñu suñu mbokk taalibe nekk it taalibe fii ci kër gi toogoon fii daa wax ci turu taalibe yi muy ma dikk Niang ci li dal ci kawam yal na yàlla yërëm soxna si xare ko ajal jaale ñu fi jóge yépp ci suñu gannaaw ci diggante bi di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi di ñaanal kilifa diine yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg te wër di ñaan jàmm ci réew mi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah